jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci réew mi FM 97.5 mbokk yi ñu daal di dellu am mbégte ci samedi ji dellu siwaat euh, si seen émission pencum réew mi comme ni nga xam ne mën nañ ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h. Euh, tey nag mbokk ñu dellu am mbégte daal di invité ministre Pape Diouf mu nekk président du conseil de surveillance de la société de recouvrement ba pare tamit mu nekk président du mouvement pour la démocratie. et la République euh, MDR mu nekk parti politique moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom ci ponk yu baree bari danañu waxtaan ci euh, élection locale yi ak lu jëm ci wàllum euh, investir benn bokk yaakaar yi nga xam ne jàpp nañu ne pëccëxoo bi mënutul ñàkk ci gox yu baree bari ñu waxtaan tamit ci coordination bu benn bokk yaakaar ci département bu département bu Bambey violence bi nga xamante ni violence politique bi ñu faral di nemmeeku loolu tamit dinañu ko daal di waxtaanee ak ñenn ñi ñi nga xam ne tamit jàpp nañu ne euh, dund gi dafa metti jamono ji ak euh, njëg yi nga xamante ni dañoo gis ne euh, yokkoon na am na yu ñu si jote wàññi ba léegi nii daal am na njëg yoo xam ne wàññiwukuwul loolu tamit dinañu ci daal di waxtaan ak moom monsieur le ministre ñoo ngi am mbégte bu baax a baax ci wuy si bi nga wuy si invitation bi ci Rewmi FM. jërëjëf Abdou Khadre ginnaaw bi ma tuubee sama borom julli ci yonantam bu tedd bi daal di santaat sëñ Tuubaa maa ngi lay nuyu di la ziar eh, Abdou Khadre nag la jégalu parce que wax dëgg yàlla am na ay yoon yoo xam ne ñu waroon toog ma ak yow waaye rek eh, ay xat-xati jamono eh, moo taxoon gisantewuñu kon ma la sant ci invitation bi nga xam ne moom nga ma def di nuyu sa auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu seen rajo bi mais également di sant ñi nga xam ne ñu ngi liggéey fii. di leen ñaanal aussi euh, yàlla na yàlla def ngeen gën a avancé. jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, waxtaan bi nag dañu koy doore ak actualité bi di dem fi ñu koy njëkkee rek moom mooy gis nañu ne démb am na opposition bi société civile bi benn collectif doy na. doon amal manifestation ngir fitna bi nga xam ne nemmeeku nañ ne euh, takk der yi dañu koy faral di teg askan wi waaye tamit euh, nee nañu tamit Macky Sall njiitu réew mi dafay doxee ci ci injustice euh, taxoon ñu def démb ab manifestation doxub ñaxtu yow lan moo ci sa xalaat ci loolu nga xam ne ay ñaxtu la. waaw Abdou Khadre xam nga man xam nga ne da yàgg naa ci langue politique macha allah macha allah. defe nag li ma ci nekk opposition sax moo ëpp li ma nekk ci gouvernement. kon xam naa euh, bu baax euh, yenn yi buy am dama koy comprendre puisque euh, suñu constitution dafa am lu mënu may mooy que nit ñi dañoo am liberté wax loo xam ne lii lañu xalaat. loo xam ne lii waaye itam di yëngu ci loo xam ne pour seen warugar kon loolu man tant que ñu ngi koy def tëral ko ci yoon man awma ci problème puisque def naa ko. nekk naa ci opposition plusieurs fois bokk naa ci manifestation ba tey euh, mais li may ñaan rek toujours mooy euh, loi bi li mu may citoyen bi nañ ko ko bàyyi. waaye citoyen bi itam fa ko loi bi yemale na fa fas yéene yem tant que euh, jàmm ngi am. waaw mais ñoom dañoo gis ne li ñuy ñaan wala li ñuy sàkk autorisation ñu leen koy lànkal dafa bëri. Mhm. waaw alors loolu itam ay revendication rek xam nga loo gis rek. Euh, ci àdduna moom euh, taxawaay ba moo ci am solo puisque su fekkee nit ñi xam nañ seen yoon taxaw di ko laaj nañu ko war a laajee gisuma lu tax ñu leen ko war a xañ suñu leen ko xañee nag te yoon may leen ko kooku man mosuma ci d'accord. mosuma ci d'accord mosuma ci d'accord. d'accord jërëjëf euh, monsieur le ministre beneen euh, actualité bi euh, muy président Macky Sall expo Dubaï 2020 mu yëkkati na fa ay kàddu lu baree bari mais boo xamante ni ñoo ngi koy waxtaanee mooy wàllum wàllum set moom dafa gis ne Sénégal setul. dafa bëgg Sénégal mel ni Dubaï Sénégal nag bu dee setul bu dee dafa salte wala kàddum yooyu yow lan moo ci sa xalaat. waaw dégg naa commentaire yi ci am fa mu ko war a fa waxee parce que far na fa wax nangam nangam bon alors euh, man du ma ci attardé ci loolu parce que yeneen wax lay indi. Ah, mais lu tax monsieur le ministre. non du ma ci attardé parce que. mais fa mu ko waxee. Euh, euh, fa ko waxee bon moo xam parce que je crois que ñi mu doon wax ay sénégalais lañu nekkoon ay sénégalais ñoo ci ëppoon bu boobu donc ci daje moom doon daje donc ay sénégalais la doon waxal xëy na da nga ne waxewu ko Sénégal waaye ay sénégalais la doon waxal te adduna bi dem na boo xam ne comme ni ñuy wax village planétaire la foo taxaw di wax. ñëpp ma nañ koo dégg alors euh, xëy na am naa ci gis-gis moo di nekk la doon gën xëy na bu lool parce que constat la boo xam ne Sénégal yi xam nañu ko donc euh, bu ko waxee fii Sénégal jàkkaarloog sénégal yi wax aussi mesures yi mu ci war a jël je crois que loolu dina dina dina baax mais bo ku ci nekk am sa interprétation mais li gën daal je crois que loolu ñëpp d'accord nañ ci. Euh, bu ñu sañoon problème Sénégal bu ñu koy wax loo xam ne concerné wul yeneen réew mais Sénégal la concerné ñu di ko wax ci biir dëkk bi loolu moom. yow lu ko d' accord d' accord laa ci léegi monsieur ministre Sénégal bu dee dafa salte moom mooy njiitu réew mi euh, mais am na ñuy wax ne sénégalais lambda bi am na ci part de responsabilité mais est ce que moom mi nga xam ne mooy njiitu réew mi euh, ñu dénk ko alal réew mi mu war a teg ay programme ngir Sénégal set wecc bu dee Sénégal dafa salte est ce que du moom mooy responsable bi si njëkk. waaw Abdou Khadre maa lay wax jamono yi passé am na waxtaan moo xam ne set set TV ci situation réew mi te ma ci wa ma dama fàttali bi président Macky Sall gagné deuxième deuxième am deuxième mandat bi mu prêté serment ba pare bind naa sama page Facebook boo ko seetee di ne président bi ngay wax ci salle bi de am na loo xam ne ba nga ko tuddee ni Sénégal yi réagiré war nga koo xam puisque bu waxee ne dañoo war a mettre ordre ci réew mi nit ñi dañoo tàccu ma ne ko def foofu la la Sénégal yi di xaare mooy réew mi moom il faut ñu tegaat ko ci yoon ñëpp nag am nañ ci responsabilité. fi mu nii nii. waaw waaw. réew mi dafa lan. non c'est-à-dire que Abdou Khadre ñoo bokk dëkk ci réew mi yow boo génnee dong di circulation yi ci dëkk bi xam nga li ngay gis ñun ñëpp lañ dëkk jarul jarul décret jarul ay wax ju bari. am na loo xam ne ci réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk mooy que ne ordre war nañ koo defaraat dëkk bi ni mu dem war nañ koo defaraat ba nga xam ne wax dëgg yàlla parce que dañu daan wax ne Sénégal dañoo dañoo dañoo bëgg lu lu set lu set lu bëgg set mais da ngay dugg ci dëkk bi gis ñoo xam ne dañoo toog ci wetu ay ordure yoo xam ne boo 100 mètres xet gi la kii ñu bëgg a tàmbal suñu bopp. Euh, sant embouteillage bi fii. embouteillage bi man damay dawal oto. Mm. mais euh, li ci am doy na waar. Ah, yoo xam ne yi euh, na ma yàlla baal du rek du rek euh, jakaar jakaar jakarta yi mais amatuñu sens interdit ñoom amatuñu feu rouge yi day dem ba ba ba sànn ba léegi ba ville loolu nag foo waaw waxuma la loolu sax mais doxal ci Dakar ñëpp oto yi ak nit ñi ñëpp ci ci tali bi lañuy jaar parce que euh, trottoir amatul hmm. bu fekkee ne nit ñi dañoo war a jaxasoog oto yi ci kaw tali bi mais musiba rek lay indi. mais la faute mais ñëpp la puisque man bu may dox ci réew Sénégal man laaju ma ñu topp ci man damay seet sama bopp man doomu aadama laa am naa xel bëgg naa lu baax ma di ko doxal. Mhm. mais état bi itam bu fekkee nit ñaa ngi jalgati waru garam mooy tegaat nit ñi ci yoon bu fekkee ne nit ñi seen responsabilité jëluñu ko. parce que loolu la état di jar. boo gisee ne lii du jaaru te la muy fut mujj du baax état bi moo war a taxaw faj ko. donc sénégalais yam ci responsabilité état bi am na ci responsabilité mais nag bu jox pàccax ba la le dernier mot revient à l' état. parce que ñoo am force publique ñoo mën a tere nit ñi ñoo mën a da neen yow diw jógal fii boo jógee ñu daal sa kaw mais sénégalais ak sénégalais mënuñoo régler seen bopp seen biir. parce que man damay gis loo xam ne li ñun dama ko def mais mënu ma ko faj. état bi nag rôle am mooy bañ a bàyyi sénégalais yi ñuy régler seen problème parce que lu bari loolu ko koy bu fekkee sénégalais dañuy dem ba régler seen bopp la muy jur gis nañu ko. d'accord dina ñëw ci dina ñëw ci loolu euh, ci violence boobu noonu ak euh, fayul sa bopp geek yu demee noonu surtout violence politique bi euh, danañu si ñëw mais dañuy commenter li nga xam ne moo gën a actualité samedi bi ak démb bërki démb gis nga CREI yi CREI bi tamit lan moo ci sa xalaat monsieur le ministre CREI yi mënuñu ko ñàkk a waxtaane ndax juróomi at a ngi nii boo xoolee presque mënoo ne liggéey bii la CREI yi def te ay magistrats ñoo nga fa ay greffier ñoo nga fa ñoo ngi leen di fay amoon na ay réformes yu ñu si waxoon waaye ba léegi nii jëmmalaguñ ko lan moo ci sa xalaat. waaye li ma xalaat daal d'abord créer loi moo ko créé te ça ne date pas d'aujourd'hui ñu dëgg euh, nañu ko jëfandikoo nag beneen affaire la mais créer moom ca temps Abdou Diouf lañu ko créé woon. lu yàgg la. est-ce que nag mu ngi def liggéeyam walla déet mu loolu mooy wax ci mais li ma gis moo di ne daal. Euh, su fekkee ne la ñu waxoon départ départ bi ñu ubbi yenn dossiers yi bu fekkee ne euh, dañoo seet rek ñi nga xam ne loi bi euh, créé yi li mu war war nañoo ñëpp ñu topp ñëpp. Mm-hmm. kooku man loolu laa d'accord. Mm-hmm. créé yi war naa am si am débat la ba aussi bu ci jotee mën naa ci wax. Mm-hmm. mais tant que ne mu ngi fi loi may ko ko effectivement. war na d'accord ngay réforme. a baax parce que yu bari mën nañ ko cee wax. mais. comme mu ngi fi réformé gu ji dindeeguñu ko fi ma ne li am daal mooy sénégalais yépp ci ma yaakaar ne ñoo képp koo xam ne kii def na loo war def wala ñu gis ne yow mii li ñu toppee ñeneen yi war nañ la koo toppee. dañ laa war a léegi euh, monsieur le ministre euh, Pape Diouf lu jëm ci wàllum dund gi euh, ñenn ñi jàpp nañu ne dund gi dafa cher bëri na njëg yoo xamante ni dafa daal di yokku yow loolu lan moo ci saxalaat waaw di ko métti comme ñëpp parce que man tam damay dépense damay joxe dépense <laughs> ci réew mi damay joxe dépense donc euh, euh, lu fi xew maa ngi koy dundaloo ak doomu aadama yi. mais yii mooy mooy ak ñeneen ñi góorgóorlu yi. waaw bon maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla wax dëgg yàlla par rapport ak ñeneen ñi maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax mais terewul. Euh, sentir nga ko di di ko santir dinaa ko santir dinaa ko sentir bon ñu ngi joxe explication nag Covid bi ci la bokk parce que. li ma dégg ci explication yi mooy que ne ak Covid bi importation yi dafa taxes yi dafa yokk donc te comme Sénégal lu ci ëpp dañu koy jëgaani te loolu sax xam naa Abdou Khadre war nañ cee wax lu ci ëpp dañu koy jëgaani donc bu fekkee ne loolu dafa yokk ci bitim réew. taxes yi yokku ah yëkku allah kulli alin il faut loolu mu répercuter ci ñi nga xam ni mooy mooy moom lay jënd. d'accord mais est-ce que explication yooyu yey na la yow monsieur le ministre. waaw en partie parce que euh, bon comme man mun maa contrôler yi jotee bitim réew. waaw non mais explication explication la am na la yanu maanaam am na lu xel nangu am na lu xel nangu. yéen bu fekkee ne euh, euh, dëgg pour dëgg. Hmm. bu fekkee ne ñun dañoo continuer di importer. Hmm. loolu moom nanu nangu accepter pas accepter mais mën a xam ne comme bitim réew la lu suñu marché di jóge la muy jóge bitim réew wala daf ne jaay perte ko ne mën na ko. Hmm. donc yi ñu ndaka jaay. defuñu pour jënd di perte. donc bu fekkee ne yokku na ci bitim réew ci la li ñu wax parce que man mënuma ex mënuma effectivement aw ma capacité vérifier loolu mais bu fekkee ne ci bitim réew la yokkoo loolu moom wax di yàlla euh, loolu mën a nekk waaye nag Abdou xaan li ma bëgg wax mooy Covid bi ak situation mel nii war na noo permettre nu seetaat suñu bopp. comment seetaat suñu bopp mooy nu seet nan Sénégal ak li nu yàlla may. puisque réew mbir ne man nekkoon naa ministre agriculture. nekk naa ministre la pêche. am na lu ma xam ci réew mi. parce que Sénégal wër naa ko ay yooni yooni yoon. dem naa bitim réew itam ñoo xam ne ñu jëfandikoo mbay comme ñun. mais yaakaar naa ne ñun su fekkee ne taxaw nañ li ñu war a taxawee ci mbay. taxaw ko ci pêche bi. ci pêche. ak élevage ak élevage yaakaar naa ne lu bari mën nañ koo bañ a jéggaani bitim réew. donc je crois que problème débat bi. foofu la war a nekk parce que bu dul rey itam mën naa nekk ëllëg mais Abdou Khadre damaa tiitoon ci Covid bi puisque pays yi nga xam ne ñooñu daan jële ceeb damay seete ceeb rek parce que mooy li ñu gën a consommer fii Sénégal réew yooyu am na temps yoo xam ne dañ doon wax ne dootuñu exporter seen seen kii mais ñooñu bu ñu téen seen bopp ci jamono jooju exporté tuñu mënuloo jëli ceeb kon fu ñu jëm kon yooyu jar nañ ko xalaat léegi moo tax ma ne Covid bi dama yàlla baal. am na njariñ ci ubbi na bëti ni ci yenn yoo xam ne yi mën nañu ko régler il faut ñun ñu jublu ci Sénégal li nga xam ne yàlla may nañu ko ci potentialité yàlla may na ko ci climat ak nag ba nag ñu exploité ko ba ëllëg si biir kenn nag mënta toog yow dong ci àdduna doo soxla kenn waaye nag am na loo xam ne lii dafa euh, jaadu am réew mën koo contrôler sa parce que lu muy lekk moom mhm. lu ñuy lekk moom réew mi wax di yàlla a ngi fi leneen a gis loo xam bu nu ko defee lañ ci war a def yaakaar naa ne duñu ko jëgaani jàpp nga ne defuñ si liñ si war a ci mbay mi ci napp gi. ci sàmm gi wax dëgg yàlla. lañ ci jàpp ma loolu. liñ war a def liñ ci war bu ñu ko defan kay du ma ko wax. <laughs> mais yow am si xalaat ci agriculture. ah bien sûr lan nga si xalaat xalaat bi mooy d'abord euh, xam nga nawet bay mu ngi nii euh, yow ci ànd xam nga xam nga région Diourbel xam nga feneen nawet bi fii naan ñu naan nawet bi fii egg na fii eggul fii eggul. te Abdou Khadre li nu yàlla may ci ndox. mooy mbayum dër mi. yàlla may ci ndox. man dem naa Maroc ay yoon demal ci seen àll bi. te Maroc noo leen ëpp ndox mais partout ndox nga fa lu ko fa def ay réalisation lañ def ay investissement irrigation ba foo taxaw noor ak nawet ngay bay. mën naa nekk Sénégal mën nekk Sénégal. ndox mi nekk ci kaw suuf rek. Mhm. waxuma la napp bi ci am. Mhm. je crois que ci ñëpp ndox. ci àdduna ci la. am nañ ndaw ñi tamit. te am ndaw yi kon loolu bu fekkal ne bu fekkal ne mbay mi jublu nañ ci bay lu ñuy dundee def ca la ca war je crois que lu bari mën naa wàññiku mais man daal metti na ma wax dëgg yàlla ak li yàlla def ci ñun ci ndox may na ko ci climat may na ko ci suuf dama lay citer benn exemple mas naa recevoir bi ma nekk ministre agriculture trois ingénieurs agronomes yu jógee Pakistan bi ñëwee ñu ne ma dañoo bëgg a dem dans la vallée parce que ma boole ak technicien ñu dem xam nga bi ñu demee ba ñëwul ak Abdou Khadre li ñu ma wax yéen Sénégal <clears throat> waxuma la bay dunde kooku moom vraiment jarul terre à terre la parce que ndox maa ngi nii à côté seen suuf amu leen montagne climat bi ngeen am mu ne mo mu ne Pakistan dañuy jëlee ndox mille kilomètres pour am xam nga Pakistan ay ay ay montagne la mm-hmm. da ngay jëlee loo xam ne pour am place boo béyee te bu ñu la waxee la ñuy produire doo ko gëm mu ne ma qu'est-ce qui vous xam nga la ne du ma ko wax mais dafa doy waar. waaw ñun dañoo amul vision wala ambition lañu amul. wala non je ne amuñu vision mais daal des na daal. mbir mi daal des na loo xam ne war nañ koo def pour que ñun problème mu mbay vraiment liñ ci yàlla may potentiel li ci ma la may wax dëgg yàlla yu baree bari waxuma la bay parce que kooku dafa ne yéen waxuma leen bay dund. waaye ñi gën a ab luy exporter mbay ci àdduna ci ngeen war a bokk. d'accord mais même monsieur le ministre dañoo gis ñi mbay mbayum no euh, dër ñu ko ñaanaan mbayum noor mooy soble carotte ak suppameeg yooyu même boo demoon ci euh, àllub euh, ñaay bi ñu bari dañuy bay foofu mais soo xoolee production bi sax ñoom dañ koy wàññi. Euh, li wala bu ñu produit produire dañ koy gaaw euh, jaay ko wanteer ko ndax amuñu ay chambre de de de conservation loolu tamit ay chambre froide loolu tamit mu nekk politique bu yom yamamaay boo xam ne euh, loolu état war na ko mën waroon na ko mën loolu lépp ok Abdou Khadre day ànd ci li may wax rek mooy ñu fexe ba am ndox ba ku bëgg a béy noor bëgg a béy ba mbay mi war nañoo def fracture yoo xam ne ak lu mën doon bu leen mbay soble sax Euh, yow xam nga àll bi. magasin yi ñu fi defoon ci àll bi. Mm-hmm. Euh, euh, seko yooyu. Mm-hmm. seko yooyu fi lañ daan denc. Mm-hmm. seko yooyu waaw. bu ñu béyee jël lañ ci def jiw denc ko fa di ko toppatoo ba ba nawet jot. ñu génne ko dara lu ci sikk. mais mën nañoo def infrastructure yu mel noonu soo béyee. avant ngay jaay. nga am foo ko denc waaye itam yëmuñu foofu ñu yem foofu. wax naa leen bitim réew am na ñu bari dañoo solal lu ñuy béy. il faut loolu ñu fexe ba régler problème boobu fa ñuy yaay ñu xam ne fii ak fii kat soxla nañu nangam ñu régler ko ba nga xam ne bu nit ñi béyee liñ ci mën a jël bu ñu ko mën mënta jël xam nañ fu ñu ko yóbbu. d'accord jërëjëf seen la. Uh-huh. foo nu def lu nu mën a béy foo nu am fu ñu leen di de fu ñu denc mais il faut déboucher aussi parce que dañu woon nit ñi naan nañu dem ci tool yi c'est vrai mais man gis naa que démboo yow gis nga ko ñu jël. Euh, euh, pataat lañ xaw ma bayoon xaw ma soble. di ko gas di suul. ak carotte bi yëpp <laughs> di ko gas di suul. te lool wax di yàlla soxla nañu ko. kon loolu yaakaar naa ne wax bi jëf ji fi ñu ko war a jubale mooy li ñu yor lan la. Mm-hmm. lan lan ci mën a def ba jariñoo ko ba lu bari. doo non seulement du soxla bitim réew mooy soxla bitim réew dañuy soxla sax. ci li nga xam ne noonu koy produire. Euh, d' accord jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, Pape Diouf yow mooy xalaat jàngat boobu nga am ci coronavirus bi ak li si Sénégal mën a jàngate fexe ba autonome ci boppam. moo xam ci jàpp nga ne wàllum mbay mi wàllum pêche bi wàllum élevage mais soo xoolee tamit Sénégal xayma nañ ko ne presque 98 pour cent. ci médicaments yi comprimés yi ñuy naan boo xoolee bitim réew lañ koy jëggaanee euh, presque chaque année 60 milliards lu jëm ci wàllu mais aussi mais sànq monsieur le ministre njëg yi euh, njëg yu yokk yi ma la doon wax sànq yow yaa ngi sukkandiku ci explication yi nga xam ne moom la ministère boobu di joxe ministère euh, du commerce maanaam kilifa yooyu mais dama gis loo xam ne fii ci dëkk bi lay jugee ba pare yokk loolu tamit nekk na loo xamante ni presque kenn mënu ko comprendre boo xoolee am na ñetti. entreprise yoo xamante ni tey société ciment la ñuy defar gis nañu ciment bi euh, dafa yokk feer bi nga xamante ni moom la ñuy defee fii fer bi tamit gis nañu dafa yokk euh, suukar tamit euh, ñu koy defaree fii ci réew mi gis nañu tamit suukar dafa nekk loo xamante ni lu yokk la loolu tamit yow lan moo ci sa xalaat. waaw loolu yaakaar naa ne bo c'est pas pour rien ñu def ministère du commerce c'est pas pour rien que je ne pas ndax mu ngi am ba tey contrôle économique est-ce que mu ngi am ba tey donc dafa am ñoo xam ne. loolu mooy seen liggéey est-ce que def nañ ko rek walla déet parce que bu fekkee ne euh, suukar si laay jël exemple dañ koy produire fii ah matière première bi ci sama yaakaar fii la kon yaakaar naa ne bu yokkoo war nañoo mën a wax seet ak ñi koy produire la tax mu yokk parce que damaa dégg ay mbiccoo mbaalo du ci am. Mm-hmm. waa CSS nañu ñoom yokkuñu. commerçant yi lay tuumaal commerçant yi lay tuumaal. tuumaay commerçant yi tam ñu ngi ñu ngi wax. kon loolu dafa am ministère bu ñu créer bu war a régler loolu leeral nag ci bopp sénégal yi lan moo indi loolu est-ce que lu ñu euh, parce que léeg-léeg ñu ñu ñu jëndi euh, leneen feneen suukar léeg-léeg ñu indi importé suukar est-ce que loolu sucre bi ñu importé moo yokku. wala sucre bi ñu produire ci dëkk bi moo yokku mais loolu je crois que nag commerçant yi enfin le ministère du commerce moo ci war a leeral bopp nit ñi. waaw léegi laaj bu mujj bi si njëg yu cher yi rek mooy instant bi dundeenu askan wi Sénégal yi ñu bari dañuy jàmban ne dañoo sonn dëkk bi dafa metti dëkk bi amul xaalis dëkk bi amul liggéey ba pare tamit frustration bi bëri na si ñu baree bare si ñàkk gi est-ce que yow euh, remarqué nga loolu. waaw mel na la Abdou Khadre dama lay wax rek ne man ci mi laa dëkk génn ma ko dem fenn kon li yi dund maa ngi koy dund. te ma sañoon wax dëgg yàlla euh, bu nu mënta dem am itam au moins nit ñi lekk ba suur loolu moom war naa nekk soxlaam ñëpp gouvernement bi ak képp koo xam ne yaa ngi ci Sénégal di ci yëngu même boo dul politique boo mën naa nga war ngaa seet ñu seet ay pexe yoo xam ni nit ñi nañu lekk parce que lu bari ci àdduna du ma ne Sénégal rek lu bari ci àdduna ay yu ci bari parce que dañ neventre ventre vide n'a pas doré nit ki bu xiifee mënoo ko wax lu mu dégg kon nañu fexe ba euh, nit ñi lekk li ma doon wax nag day dellu ci loolu nit ñi lekk mooy nañu fexe ba ñu bay loo xam ne lii dina nit ñi ca lekk waaye fekkee dafa am lu ñuy jëgaani ñu fexee ba teg ko ci yoon ba ay surtaxe ak nangam ak nangam yoo xam ne kenn tëralu ko fenn ñu mën koo dindi. Euh, monsieur le ministre euh, ñu yow yaay nekk ganu réew mi FM tey ñu bëgg a wax nag ci li nga xam ne mooy trafic passeport diplomatique yi. ñu tudd si ñaari député kenn ki di bi yaay ak Mamadou sàll ñoom ñaar ñëpp ñu bokk ci Benno Bokk Yaakaar euh, li nga xam ne mooy altine bi ñu mal sax si la ñuy euh, fexe examiner nag euh, li nga xamante ni tey moom mooy moom mooy dossier boobu. yow trafic passeport diplomatique boobu ñu tudd si ñaari député ci mouvance présidentielle yow te nga bokk ci mouvance présidentielle bi nga ko déggee lan moo ci nekkoon sa xalaat. waaw je crois que loolu am na fu ma ci tontu déjà ci plateau yi. mooy que ne euh, que muy Benno Bokk Yaakaar wala mu beneen muy député mu ñàkk député képp ko def ko def ak ni ma ci déggee bu fekkee ne noonu la dama koy ñaawlu afu ñaawlu yëpp ndax ñun sénégalais lañu Sénégal lañu am kon lépp lu yàq deru Sénégal ak ku ko man di def du ñu man lu may naqarlu ko ba naqarlu am comme nag ñun yoruñu faj-faj bi li nu man rek mooy exprimer ne ñun d'accord nu ci tey d'accord nu ci ëllëg waaye li may fàttali rek Abdou Khadre moo nekk euh, passeport diplomatique moom wax dëgg yàlla coow li du tey du tey na yu ci bari xëy na yow peut-être fekk woo ko mais coow li egsi na ci yow parce que journaliste nga da ngeen di gëstu xam nga ne passeport diplomatique moom coow li yàgg na. Mm-hmm. dégg ngeen sax président Macky Sall je crois 2018 2019 yëkkati woon naa ci kàddoom. ba mm-hmm. ne dañ ko teg ci yoon. donc feebar la bu nekk Sénégal boo xam ne il faut ñu faj ko. parce que dañuy dem bitim réew ay bitim réew dañuy jokkoo ak ñun kon lépp loo xam ne lii day yàq deru senegal ci njariñal ay nit rek ay nit yoo xam ne seen bopp dong ñoo tax ñu ko def ma ne il faut ñu joxe exemple boo xam ne kenn dootu xalaat def ko ñu guñu ko laay bañ nag ak foo man di far man nanguwuma man damaa d'accord ne nit ki même sax bu fekkee ne da ngeen a far ci moom nga gën a war a sévère pour mu jub mais contraire bi la ñenn ñi gis. waaw loolu lañu gis mais li ma bëgg wax daal mooy lii daal moo teew am na député yoo xam ne defe naa lundi na ne je ne sais pas assemblée na daje dina lever mais nañu def enquête bi ba ñi nga xam ne non seulement parce que député am na ñu ko seqal. waaw ah xam nga ah bien sûr. ñi ñu ko daan jox mais fu ñu leen di teg bu ñu wax député yi rek. képp ku ci laal ak fu man di nag war nañ ko gëstu bu ñu ci yàkkamti nag man parce que damaa gis ni ñu naan war nañ gaaw déedéet. parce que comme mbir la moo xam ne yàgg na fi war ñoo jël temps pour régler ko une fois pour toutes donc lépp ku ci laal muy si bitim réew mu nekk réew wala ku nekk réew mi kuy citoyen wala député nga nangam ak nangam ñu xam ne sénégalais yi ñii ñoo ko def teg nañ leen lii ba ëllëg si biir xel du ko xalaat. mais est-ce que yow jàpp nga ne danañ dem ba sa cëppaandaw. ah kooku nag wax di yàlla man Abdou Khadre man est-ce que jàpp jàpp. man dama ci rafet njort. parce que yaakaar naa ni ma bëggee Sénégal. man sama ni ma bëggee Sénégal damay jàpp ne yeneen sénégalais comme na lañ ko bëggee. donc man mënuma am ñaaw njort ci kenn. li ma xam daal mooy li ma bëgg. Eh, te sénégalais yu bari di ko wax mooy que yàq nañ suñu der. nañ ko setal ba nga xam ne teg daan yoo xam ne ëllëg si biir benn sénégalais dootul xalaat di ko def. d'accord. jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, Pape Diouf euh, mbokk yi moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi monsieur le ministre ñu wax nag ci li nga xamante ni tey moom moo jëm ci wàllum élection locale yi ak investir benn bokk yaakaar yi yow nga bokk ci mouvance présidentielle gis nañu ne ñu baree baree baree bari ci biir benn bokk yaakaar nee nañu ay candidat lañ wala candidat lañ bëgg doon ci gox bi ñu dëkk ñeen yi nag jàpp nañu ne daal pëcc pëccxoo moom munta ñàkk ci biir benn Bokk Yaakaar ndax euh, neewaana fooy dem boo demoon Louga nga dem kawlak nga dem Ziguinchor tey euh, nga dem jurbel euh, foo dem rek kenn ku nekk ma ngi wax bëgg-bëggam taxawaayam même dakaar gi yow lan moo ci sa xalaat waaw Abdou Khadre ni nga ko waxee effectivement man ci benn Bokk Yaakaar laa bokk hmm. alors donc maa ngi suivre même bu dul fa ma dëkk sax maa ngi suivre ci Sénégal euh, li ciy yëngu parce que euh, nit lépp lu mu bokk war na ñaan wala muy fexe lu koy rafetal ak lu koy yëkkati ci man loolu laa nekk. Mm-hmm. moo tax dama ci wax sax ñoo xam ne bokkuñu région mais Sénégal lañ dëkk. Mm-hmm. Euh, di ma ma leen ci wax sama xalaat. Mm-hmm. di leen laaj seen xalaatam ci fa ñu nekk. kon loolu du loo xam ne lu lu bees la ah li ma gis nag pëccoxoo bi nag moom lu benn bokk yaakaar rek. mais bokkuma see gën. waaw moo gën moo gën noonu la damay wax rek damay wax. damay wax ne que pëccoxoo bi moom dina ñëw si yeneen coalition. mais yéen yéen voilà damaa bëgg rek dinaa ci egg. may dama ne pëccoxoo bi du ñun du sax pour mais c'est pour dire que seen normal que et je le salue hein, vraiment que des Sénégalais dëkk ci gox ne ñoom dañoo bëgg gox bi tabb leen pour ñu def la ñu mën soo xam xam-xam la moo tax ay relation am bitim réew la kooku man vraiment ñaawlu moo ko. la may ñaawlu rek mooy euh, xëccoo ba ñàkk xëccoo ba ñàkk parce que loolu euh, bokkul ci fulla fayda xëccoo ba ñàkk xëccoo ba ñàkk xëccoo ba ñàkk mooy fukki candidat wala ñaar fukki candidat di xëccoo kenn nangu ta bàyyi alors foofu sax bon je crois que kiiwagul parce que euh, gisagumu fenn officiellement foo xam ne dañoo désigné nekk tel tel mooy candidat nit ñi nag ñooy wax seen i bëgg-bëgg est-ce que nag bu ñu demee ba jubóowuñu ba kilifa yi tànn ne diw lañu fay teg seen comportement mënu ma ko xam mais daal li ma xam daal mooy fi mu nekk fi ñu toll suñu ko rafetalee parce que xëccoo moom dara nekku ci bëgg naa def naa sama candidature nangam ak nang kooku moom. mais est-ce que jàpp nga ni la yomb ci président pour mu pour mu def investiture yu yoo xamante ni du am yenn problème wala yenn choix yoo. xamante non non président moom du yomb ci moom même ñun yi rek du yomb ci ñun. ah yomb ah, yomb parce que. soo fekkee am nga mbooloo ay ay millions de personnes yoo xam ne yii dañoo ànd ak yow te nga bëgg ànd boo xam ne bii du la indil jafe wala du la indil defet xam nga loolu ci doomu adama ku ne war naa xalaat ne que dina dina jafeñ parce que su fekkee dafa bàyyi rek nit ñi nañ def leen neex kooku itam baaxul. Mhm. mais comme dafa bëgg bennoo bi mu bokk wax dëgg yàlla du fi jaare tas. wala lu fa indi loo xam ne lii dañuy taxal ñoo xam ne ëllëg si biir ñu ñu gaañe leen je crois que loolu aussi mettez-vous à sa place nit ki moom doomu aadama doomu aadama la. waaw mais monsieur le ministre dafa mel ni dafa am ñu bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñuy défier président bi ndax am na ñoo xam ne ñoo jóg taxaw ne ñoom candidat la ñu doon euh, mel ni que daal dañ ne ñoom par force dañu nekk candidat. gis naa ñenn si ñoom. mais euh, Abdou Karim loolu du tey rek 2014 bi ñu passé. Hmm. mais am na ay listes parallèles beaucoup de yoo xam ne ci am même département am na. loolu comme du lu bees xëy na peut day yokk <laughs> mën naa yokk nag parce que compte tenu bon nit ñi ni ñu gisee enjeu léegi ñu intéressé wu trop parce que bu njëkkoon yow xam nga euh, ñu bari affaire commune yi ci àll bi ak yooyu seen intéressé wu leen ñu ngi doon ay post wala ñu nangam ak nangam mais léegi nag ñëpp. dafa mel ni commune leen intéressé. daf léegi parce que bon gis nañu njariñ li ci nekk xam nañu nekk wax dëgg yàlla boo bëggee liggéeyal sa gox am na yoo xam ne il faut nga nga maîtriser ko donc loolu c'est normal nit ñi dañoo yokk parti yokk. donc il faut pëccoxoo bi moom mënta ñàkk. ci benn bokk yaakaar d'accord. waaw mais est jàpp nga ne monsieur ministre kon daal jàpp nga ne liste parallèle yi dina am ci benn bokk yaakaar. non waxuma ko dama ne amoon na. waaw non dama ne est-ce que 2022 jàpp nga ne liste parallèle dina am ci benn bokk yaakaar. du ma du ma gisaane kat nag. non non non waxuma waxuma pour nga nga nga affirmer ko mais dama ne. Uh-huh. est-ce yaakaar nga ne. si nii nga gisee gun ñu koy doxee ci biir benn bokk yaakaar di ko waxee. Mm-hmm. ndax njortu nga ne wala jàpp nga ne. list parallèle dina am ci élection locale yi ñu dëgmal ci biir benn bokk yaakaar. mën naa nekk mën naa nekk comme amoon na 2014 mën naa am bii mais man day fa ma dëkk maa ngi ciy doxi tànk pour mu bañ a am te ñëpp ñi may jokkool ci Sénégal aussi di ma laaj sama xalaat maa ngi dox ak wax loolu pour que mu bañ a am mais nag mën naa am. léegi su amee lan mooy nekk waaw comme amoon na. Mhm. nga ne su ne bu amee lan mooy nekk conséquences yi mais. ña ko defal loo ci gis ña ko defal am na lu luñ ci gis conséquences yi mooy bu fekkee ànduñu ñeneen jàkkaarloog ñun sénégalais comme ñun ànd jàkkaarloog ñun da duy ñàkk kooku moom <laughs> y' a pas cherché. d' accord jarul sori. waaw ah, d' accord léegi euh, monsieur le ministre Pape euh, yaa ngi wax ne pëccoxoo du benn bokk yaakaar rek lay am mais tey ci coalition Yewwi Askan Wi foofu tamit euh, ndax jàpp nga ne coalition la ndax ñoom jàpp nañu ne lii ay ay ay ay lu ne lañ ko tuddee ñoom ay primaire rek ay premier tour rek préélection présidentielle 2024 Yewwi Askan Wi ñoom jàpp nañu ne dañoo bëgg a raafale communes yi est ce que du coalition boo xam ne xaw na leen tiital wala bàyyi ngeen ko xel à à 100 pour cent. waaw Abdou Khadre man xam nga boo ma toppee ci politique faral lu ma di wax ci ñeneen ay doomu aadama ci ñi fi dem benno bi ma bokk daal boo ma ci laajee. waaw mais coalition Yewwi Askan Wi. kàngam ya fa nekk kay. maa ngi leen di maa ngi leen di dégg. wax naa la sànq pëcc xoo mën naa nekk bañ a nekk rek benno parce que fële itam mbooloo ju bari fa nekk du ñëpp benn kàddu donc pëcc bi am fii. mën naa am foofu. d'accord léegi léegi léegi bu paasee bi. <laughs> kàngam yi nekk ci Yewwi Askan Wi est-ce que. Euh, amu leen si xel ñaar ka ne mën nañ leen a gagné ci grande ville yi. xam nga man toujours dama wax Abdou Khadre damay wax ne il faut ñu respecter sénégalais yi parce que dem élection naa ñi duñu dara nangam ak nangam man d'accord ma ci sénégalais yi ñooy wote lan nekk seen bopp ba ñuy wote ñoom ñoo ko xam may li ma xam daal mooy fa nga far fexeel ba am doole waaye kii dama koo xeeb ak kii daal nangam ak nangam man du sama préoccupation li ma préoccupé mooy fa ma dëkk ak bennoo fa ñu nekk nan fexe ba am doole. ak quelque que soit ku ñu jàkkaarloo parce que ñun xamante nañ ci réew mi xamante nañ donc ñii du ñu am ak nag man du ma dugg ci débat yooyu. ko mais mais mais gis nañ euh, coalition yi ay trois 4 coalition loolu tamit est-ce que gisoo si lenn lu yokk ci sunu démocratie aussi. waaw mais comme loi bi moo ko maye. ah foog ko. loi bi moo maye coalition am parti am. Hmm. kon loolu il faut en tirer les bu fekkee ne dañoo limité parti comme du temps de Senghor 4 40 nangam ak nangam bon ku ko jalgati mais nag dañu ne suñu démocratie fi mu toll ku bëgg créer parti ku bëgg def coalition def coalition donc nit ñi li yoon tëral ñu ngi ci. d'accord waaw. donc léegi euh, monsieur le ministre euh, élection locale yi ci département bu Bambey. Mhm. département boobu nga xamante ni yow fa nga dëkk euh, foofu tamit ndax. jàpp leen ne pëccëxoo dina fa am ci ci ci ci élection locale yi ci au niveau départemental. waaw mooy li ma la wax rek euh, c'est valable pour Bambey Bambey parce que Bambey ay doom ay doomi Bambey ñu nga fa euh, ne ku ci nekk fëgg dënnam ne man yaakaar naa ne ak li ma xam ak ñi ma topp buñ ma tabbee ma nekk maire xam nga kooku kenn mënu ci dara sénégalais nga Bambey nga dëkk am nga loo yaakaar ci élection yi waa Bambey ñoo ñoo ñoo ñooy wote donc mu neex nga ne ah man kat jàpp naa ne bu ñu ma jiitalee ma gagné ko xam nga man mënumaa toog fii naan diw ak diw ak diw déedéet. mais yaa ngi ciy dox. maa ngi ciy dox puisque soo suivre parce que bu ci nekk def naa point de presse def naa fa ñaar réunion d' abord benn bi au niveau département la. Euh, te loolu dama koy leeral fii sax Abdou Khadre parce que dafa am yenn coow yu ma ci dégg euh, ba ma koy def sama parti laa woo assemblée générale ñu ne ma man nga ci département bi yaa ngi ci fan nga fan nga defee euh, euh, kii bi sama permanence Bambey euh, au mois de ah, juin fi nga defaree conférence de bi non non daa war assemblée générale sama parti sama permanence laa ko def ci Bambey sama responsable bi nekk département bi yëpp daje ba ñu waxtaanee ñu ne yow man nga ci département bi te lii nuy jubal pour éviter pàccaxoo boobu ngay wax dox ci sa parti sama waa parti ñoo ma sant ne ma jëlal sa dàll nga dem seeti yenn parti alliés yi bokk ci be Benno Bokk Yaakaar ngeen waxtaan pour daje pour seet nan la ñuy doxalee ci commune bi ak ci département bi. Hmm. ci laa woote département fële centre des handicapés xam nga ko Bambey. vraiment ñu wuy si ah ñu def lafetlu ko ñu ne ku nekk na dellu sa commune su fekkee ne. principe lan moo nekkoon waxtaan bi. waxtaan moo doon loolu. Hmm. élection yi di ñëw daal. nan fexee ba pëcc xoo bañ ci am ba nuy ñàkk. nan fexe. ngeen am ay candidat unique. candidat unique. ci communes yi ak au niveau département pour que ëllëg si bi ñu xam ne que nii ñu nekkal jàkkaarloog ñoom te ñu Sénégalais comme ñun li ñu li ñu bëgg la ñu bëgg kon nan ñun suñu bopp nan waxtaan ba def benn dànk pour jàkk jàmmaarloog loolu moo doon waxtaan moom. ñu rafetlu ko jóge fa alors bi ñu toogaatee nag ma ne bon euh, commune Bambey. beneen deuxième waxtaan. beneen waxtaan la beneen waxtaan la boobu le 2 bi passé la. Mm. le 2 euh, octobre. fem lieu bi lañ ko defee waa commune Bambey ñoo tase may leen ah am na ñu bari ci yéen kat fekke war nañu réunion ñoo ma woote woon fii moo tax may woote waat ci commune Bambey que dañ ne ba def ne mbay ci sawewu tànk nañu seet ci Bambey nan la ñuy waxtaane ñun ba bañ a toog ba ñuy jox imposé benn candidat parce que bu ñu sañoon kenn du ñu imposer candidat mais ñun ñooy seet suñu biir Bambey parce que Bambey ak lu nit mën a xam nanga ma ne ñun ña fa dëkk. loolu gën a xam gën a xam. ñu noonu nag nañu waxtaan ba teg loolu pour ñu waxtaan alors ñu ne la ñuy def alors comme amoon na te loolu sax laa bëgg mu leeral euh, euh, euh, Abdou Khadre mooy que ne am na commission bu ñu créé woon depuis 2017 commission des sages. ay mag la ñi ay retraité lañu nangam nàngam nangam ñoo xam ne wax dëgg yàlla deux 2017 ci législative yi am na ay coppa coox yoo xam ne war nañu départ problème yu bari ñu réglé ko bi ñu ñëwee ci 2019 bi aussi yu problème réglé ñu ne nag comme commission bu am na nañ leen dëkk mission boobu maanaam ne leen kuy candidat na ñëw déposer sa candidature foofu yéen nag yéenay dégager ay critères yoo xam ne yi est-ce que njàng la est-ce que expérience la est-ce que relation extérieure nangam ak nangam yeneen définir daal seen i yoo xam ne ngeen seet na candidat yi ngeen jot kan moo ci ëpp ci la ci loolu loolu la ñu dénkoon commission commission bu liggéey na ba àllarba laa dem Bambey pour xool ak ñoom la ñu liggéey mais également daje ak candidat yi d'accord toute la journée de mercredi foofu la ñu nekk amaguñu solution nag mais ba tey ñoo ngi yaakaar yaakaar waxtaan nañu daal ah, xam nga ànd moom wax wax moom bon. mais mais yéen euh, da ngeen a bëgg euh, di tànn euh, candidat di ko def au niveau communal par commune par commune par commune. voilà noonu ngeen ko bëgg a def. waaw loolu bëggal parce que yenn commune ñu ngi daje ah. du commune Bambey rek. waaw mais il faut am benn comité au moins boo xamante ni moom mooy encadrer département bi. pour xam nga xam nga bu fekk xam nga bu bëggee département bi yépp yow nga di ko ba day metti mais bu fekkee ne commune bu nekk comme ni ma def Bambey ña fa dëkk. yeneen communes ñu ngi koy def ñu waxtaan seen biir fekkee mën nañu waxtaan ba jubóo seen biir yoonu kenn nekku ci. waaw non mais xam nga tey par exemple tey monsieur le ministre yow expérience bi nga si nga bokk ci benn bokk yaakaar te jaar yépp gis nañ taxawaay bi nga xamante ni amoon nga euh, ci comité yi ndax am na ñoo xamante ni bu dee ñoom ak ñoom mënuñoo déggoo ak ak seen population euh, bëri na fi maire yoo xamante ni ñi mu ñu teg seen tànk si yenn gox yi ci département Bambey te yow peut-être sax mën nga si commune boobu euh, am na loo ci loo ci liggéeyoon est-ce que benn bokk yaakaar waruñu taxawal benn comité xaw ma nu ñu koy tuddee loo xam ne moom mooy encadrer euh, yeneen comité yi nga xam ne ay comité communal la ñuy doon. voilà Abdou Khadre euh, fi mu nekk ñu bari effectivement ñu ngi jokkoo ak man même bu ndeeree réunion wax dëgg yàlla ñu ci bari ci commune yi ñu may rendre man leen wax ci sama xalaat ku ma ca mën a waxal wax ak yow pour jàmmoo am mais loolu nga wax ñun loolu la ñu jàppoon conseil département fi ki kii euh, comment ça kii bi réunion départementale bi dañu noonu. ci pro ay proposition dañ noonu nañu fexe defar benn comité boo xam ne commune bu bu buy daje fekkee am na difficulté ñu dépêché fa ay nit pour ñu def ay arrangement ba léegi maa ngi ci disposition yooyu am na ñoo xam ne maa ngi wax ñëpp mën a am sax ma dem ci fan yi dem seeti leen parce que am na ay peut-être ay euh, kii ñu am réero yoo xam ne yaakaar nañ ne mën naa ca dara ak ñeneen ak du man rek am na yeneen responsable si ñu ngi dox ak wax donc loolu bañuñu ko te je crois que sax mooy l'idéal ce ñu am benn comité boo xam ne mais bon ak le temps aussi xam nga temps bi aussi dépôt ak dépôt yi am na loo xam ne benn comité rek mënta wër commune yëpp mais fekkee ne am na commune yoo xam ne waxtaan nañ seen biir am na ci ñoo xam ne du ma leen wax mais yaakaar naa ne jubóo mën na am seen biir ñooñu mën nañ leen a bàyyi ñi nga xam ne dañ taxaw dikku ñu ah bu fekkee ay mag euh, mën nañoo dem wax ak ñoom pour que jàmm am aussi man loolu bañu ma ko. mais est-ce que coordination Benno Bokk Yaakaar ni mu war a fonctionner dëgg ci département bi ma ngi koy doxee. bon xam nga loolu appréciation personnelle rek laa la ci mën a jox mais personnel laa la ci mën a jox bu fekkee ne euh, te te du ñun rek comme ni nga waxee naan bokkuma ci moo gën <laughs> ñëpp mais je crois que coordination Benno ci dans les différentes localité yaa a à am na ñu ñu ci mën a wax. mais département Bambey. mais xam nga monsieur le ministre sànq waxoon naa la ko. nee naa man bokkuma ci. du man du kese waaw waaw. mais mais mais coordination département bu Bambey. waaw dafa ñu bari dañuy wax ne coordination bi ni mu war a doxee doxewu ni. Mhm. Euh, ni mu war a defee ay activités ay réunions. bien sûr loolu moom dàkk dëgg la kooku kenn mënu ko werante parce que euh, ba nu jógee ci élection présidentielle ba tey réunion bi ma fi wootee te sax man bon loolu sax naa ci wax parce que. am na ñu naan way Pape Diouf ma ne leen man réclamé wu ma coordination coordinateur non musuma ko réclamé la dernière fois ma j'étais Benno def nañu plusieurs fois coordinateur départ même bii passé élection présidentielle ba ñu may def ko fekkewu ma ko réew moom ca réunion ba sax mhm. pour dire que man du sama préoccupation parce que quand même 96 ba tey maa ngi Bambey jiite naa fi lu nekk mu ci PDS mu ci réew mi muy nangam ak nangam donc coordination sama préoccupation mooy man am naa tuuti expérience. mais monsieur le ministre am na loo xam ne peut-être doo ko mën a wax. Mm-hmm. mais yow ni nga mën a ju ni nga juboo par exemple tey douze commune yëpp nga man faa dem waxtaan ak maire ya am na ñoo xam ne amuñu entente boobu ak ak ak yeneen communes yi aussi. waaw même bu ma nekkul coordonnateur euh, euh, Abdou Khadre maa ngi koy dox mm. même bu ma nekk coordonnateur. mais mais bi nga wootee réunion dañ la doon wax na la dangay bëgg euh, lu ñu la wax ci coordination bi. non non gis naa benn kenn rek moo ko wax ah gisuma ñaar gisuma ñett. Mm-hmm. ci li ma liir ci presse bi. daf ne commission boobu initiative privée Pape Diouf la et que Pape Diouf n'est pas représentative pour désigner quelqu'un ma leeral ne man benn euh, commission bi wax naa la la ko taxawal du ma créé donc c'est pas ma création sama parti moom ma sant ma woo wax ak ñeneen parti ba nu dajee commission boobu dañ ne commission des sages la boo xam ne man samp ma ko dañ koo sampal depuis 2017 ñooñu lañ jox mission bi donc c' est pas initiative privée parce que initiative privée mooy man ma tëju sama néeg rek xëy def nga sama parti moo mandaté waxtaanal ak yeneen parti xam nga loolu mission la bu ñu ma jox. d'accord mais ah, ah, ah. la ca des mooy. la ca des mooy commission wax naa ko dinaa ci dellusi parce que c' est très important pour moi commission bi créé wu ma ko. Mhm. commission bu nekkal la ñu ne ah commission bi comme ay mag lañu te am na liggéey boo xam ne rafet nañ def nañ ko ci élection yi passé pourquoi duñu leen jox lii loolu moo indi wax waaw. mais mais coordination benn bokk yaakaar yow gis nga ne ni war a doxee doxewu ni. Mhm. waaw mais boo koy constat la boo xam ne bii bu fekkee ne ñun depuis 2019 présidentielle ba léegi réunion réunion bi ma fi woote moo fi am kon yaakaar naa ne am na lu ci nekk te war na di war di daje di def évaluation parce que bu fekkee ne. Euh, euh, bon du wax ñeneen parce que sama yoon nekku ci ñoom bon du wax ne sama yoon nekku ci mais mënu maa wax ci seen seen place mais Bambey gëm a dëkk su fekkee ne depuis élection présidentielle ñoo ngi daje di échanger di seet localité par localité si le faut sax léeg-léeg ñu wàcc benn commune xëy na problème yi nu am tey. du ñu ko am. léegi est-ce que mos nga seewoo coordinateur bi mor nga waxtaan seeg moom. man lu may def naa ko yëgal par commune bi commune bi ma woowuma ko. mais comme comité département comité département bi ñu koy woote moom waxtaan naa ci wax naa ko mu rafetlu ko. te naa ci yokk sax discrétion dafa ma ne grand lii ngay def soo ko defee war soo ko deful kon yëgoon nañu. bañ jàppee daal wax naa ko. ñëwul nag ca réunion boobu mais ñaaw ñaawluwuma ko parce que doomu aadama mënul lu xew mu fekke ko. mais yónnee wu mais wax dëgg yàlla ndax yónnee na fos wax dëgg yàlla APR ñu bari ñëw nañu bari ñëw nañu ci réunion ba. mais ndax coordonnateur bi Mor Ngom amoon représentant. non kenn waxul ci turam nag mais parti bi mu bokk daal wax dëgg yàlla ñëw nañu ci bari. voilà voilà. d'accord léegi monsieur le ministre euh, ndax yow candidat nga ci élection locale yi. waaw xam nga xam nga loolu boo ma ko laaj du la ko wax fi mu nekk <laughs> parce que kuy defar. kuy defar doo wax doo wax yenn yi. d'accord ah, wax di yàlla euh, mënuma la ci wax leen mooy daal man du sama bopp parce que wax di yàlla damay sant yàlla. parce que département Bambey yaakaar naa ne lu ne nekk naa ko fa nekk naa député nekk naa maire nekk naa nga mën na kon lii jariñ rek askan wi man ci loolu laa nekk. bu ñu xëyee ne ma bokkoo ci élection yi sax te la tax ñu def ko muy njariñal Bambey. naa ko lu ma ci am problème. léegi bu ñu demee ba commune Bambey euh, ñu jàpp ne yaa war a nekk seen candidat. waaw kooku nag wax la ñu ñëwagul. non bu amoon tey. waaw dama ne non su amoon tey mais tënkal naa la wax ji dama leen lépp lu ñu def tënk ko yaakaar ne man mii sama attitude mën na caa indi njariñ ah duma ko bañ parce que intérêt Bambey laay seet. d'accord waaw. jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, Pape Diouf mbokk yi moom la ñu invité tey euh, ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM moom nag moom mooy président du conseil de surveillance de la société de recouvrement nekk président du mouvement pour la démocratie et la république léegi sa parti bi monsieur le ministre ndax sa parti bi am na ñu si jot a wax ne ñoom ay candidat lañ ci ci ci douze communes nekk ci Bambey. ñàkk du ñàkk. du ñàkk parce que maa ngi suur kay maa ngi waxtaan ak sama nit ñu nekk commune yi euh, am na ci posé candidat du ma la tudd tur mm-hmm. mais am na ci ñoo xam ne effectivement ñu ngi bëre fa ñu nekk. Mm-hmm. ak yeneen aussi am na ñoo xam ne vraiment ñu ngi waxtaan ak yeneen. gemb c'est trop dire gemb leen ci euh, lépp la ma leen di wax tam mooy na ngeen fexe ba buy ànd bi yàq bu mu jóge ci yéen. li may doxal loolu laa bëgg ñu doxale ni léegi euh, monsieur le ministre yow yaa nekk tamit euh, président du conseil de surveillance de la société de recouvrement euh, kër googu ñu dénk la ko lan nga mën a wax foofu ci liggéey bi ak avancement bi. waaw maay président du conseil mais am na directeur général. Mm-hmm. directeur général que maa ngi koy nuyu sax au passage muy maître Bassirou Ngom Bassirou Ngom mooy directeur général bi man maay président du conseil. Mm-hmm. donc société la je crois xam nga ñu ngi ko créé woon en bi ñu tasee banques yi. mission moo doon ñi nga xam ne dañoo amoon xaalis ci banques yi ñu tas banques yi pour ñu delloo leen seen xaalis. Mm-hmm. beneen bi ñi nga xamal ne dañoo amoon bor société bi euh, banque yi société bi topp leen ci loolu la ñu nekk depuis 91 ba léegi. Euh, ñu ngi sant yàlla ñu ci bari ñoo xam ne seen xaalis mi ñu ko fa woon euh, jox nañ leen am na ñoo xam ne sax dañuy def ay annonce kenn du gis xaw ma dañoo nekkatu ci àdduna xaw ma naa nga mais def nañ plusieurs fois yeneen journaux. pour annoncer tel tel tel tel parce que année bu jot dañuy budgétiser nangam pour remboursement euh, bon pour ñi nga xam ne dañoo seen xaalis dafa nekk foofu. Mm-hmm. donc yaakaar naa ne en fait loolu moom ci ñi ko ñi nga xam ne signalé wu ñu am kii mais ñu ngi koy def chaque anne chaque année dañuy def chaque année sax parfois dañuy def publication ay ñaari yoon ci ci at mi. Mm-hmm. pour wax nit ñi ne tel ak tel tel. seen xaalis a ngi fii bu ngeen kii ngeen jël si ko am nañu bari di ñëw nag di ko jël si. d'accord waaw waaw. Euh, léegi euh, monsieur le laaj bu mujj bi rek ndax waxtu wi jeex na fan yi gis nañ benn violence bu am euh, fi nga xam ne mooy Ziguinchor ñu si tudd Doudou Ka mu jiite AIBD mu nekk ci mouvance présidentielle ak njiitul Pastef Ousmane Sonko te élection yi ñëwagul ñu commencé gis lu mel noonu yow lan moo ci sa xalaat. xam ne ma doon wax rek xam naa di ma ko waxaat mooy que ne violence politique moom yàgg na fi. dinaa ci développe yaa ngi fàttaliku euh, euh, Demba Diop. Mm-hmm. était parlementaire ministre des sports Thiès gi lañ ko poignardé bëccëg Bambey ga ma dëkk xam nga ne 99 am na ku ñu fare ci meeting boo xam ne Tanor fa Tanor moo ko doon présider ak yeneen yeneen yoo xam ne mën nañ ko wax di la l'histoire du Sénégal man ma di ko ñaawlu di ko condamné parce que man en tout cas yàlla nga may dimbali ba ma nekkee ci politique ba tey xëy na def nañ ma nag waaye musuma yëkkati kàddu boo xam ne bi mën naa yee fitna wala ma attaqué nit yoo mën naa yee fitna ba leen di ci jur pourtant def nañ ma ko mais nag bref day jàll. Euh, kan la ko defoon bon jaru ko jaru ko vraiment bëgg may tudd ay tour donc bon gëstul rek di nga xam. li la woon waaw Bambey alors donc. Euh, violence moom d'accord ma ci mais li gën a garaw mooy euh, loi Ezzan yaa ngi koy fàttaliku. ñu def na dañuy amnistier crime politique yi am lépp 93 à deux mille 2004 loolu ma lay wax Bambey ci meetingu kii bi am na ñoo xam ne nara leen tëj ci loolu mais ba loi Ezzan ñëwee lañ ko dindi donc il faut pas ñuy teg ay loo xam ne day encourager violence violence Sénégal dafa xat ñu ñëpp mbokk lañu te te euh, Abdou Khadre boo waxante dëgg fi mu nekk politique rek Sénégal ci boppam ñoo devenir ñi dañoo violent fi mu nekk. li ñuy rey ci Sénégal fi mu nekk xam nga ne yow say at bërit comme man. Mm-hmm. mais xam ne li ñuy rey fi mu nekk. Mm-hmm. ay sénégalais di ko def amutal. il faut nag nu seet bu ñu seet politique bi rek man tuuti dama leen wax ne bu leen focaliser wu rek ci politiciens yi am na ñu gën a dëng politiciens yëpp nekk ci société société bi lu bon moom. am na fu nekk mais nan fexe ba fu mu nekk jim ko dindi man de politique duma ci encourager kenn muy gaañ kenn parce que ku nekk am nga droit taxaw ne ànduma ci lii fi nekk man def naa ko nee naa la man li ma nekk ci opposition moo nekk li ma nekk ci pouvoir kon am naa effectivement sañ-sañ wax ne que nit ku nekk am nga droit ne lii fi nekk d'accorduma ci waaye nag teg ko ci yoon aussi yow itam parce que nee jàmm ku ko bëgg da koy wax di ko dox di ko def hmm. jàmm laa bëgg te suba goo xëyee wax lu taalab dëkk bëggoo jàmm jàmm laa bëgg te suba goo ne ngay def acte yoo xam ne mën naa taalab dëkk bëggoo jàmm kon nan boole ñett yi di ko wax di ko jëfe ah di ko doxe mais la xaw Ziguinchor ak la ko jiitu ak leneen ak leneen ñaawlu naa ko ba fa ñaawlu di yem ak koo man di def. d'accord oui parce que bu ñu duggee ci loolu. ci élection yi di ñëw ak pëccoxoo bi ngay wax déjà am ci. mais bu ñu ci dugalee violence déjà mais fu ñu Sénégal yemul janvier. danoo ñaan yàlla Sénégal continuer fenn yeneen élection yeneen élection yi ba mais bu ñu demee ba ñimeetu ñoo dem élection parce que nit ñi dañuy reyante mais ñaaw na ci ñun te dañu naan Sénégal mooy euh, xawma la vitrine de dem euh, Afrique mais bu ñu demee bay reyante mënatuñoo élection lépp mais fu ni gàll fan la ñu jëm ñun sénégalais. d'accord oui. jërëjëf euh, monsieur le ministre Pape Diouf ñoo ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci wuy si bi nga wuy si invitation bi. waaw Abdou Khadre maa la gën a sant parce que ñu bari dañ naan déggatuñu la nangam ak nangam mais euh, maa ngi ci réew mi maa ngi ci réew mi di suivre aussi comme sénégalais yëpp mais bon yàlla d'abord bind na ma bari wu may wax mais ñaareel bi aussi dafa am wax yoo xam ne pour man ci Sénégal amul intérêt. yoo xam ne yéet fitna ak xasante ak ŋàññante. nekkuma ci nekkuma ci loolu. jërëjëf euh, monsieur le ministre kon mbokk yi euh, moom la ñu invité woon tey seen émission pencum réew mi muy ministre Pape Diouf nekk président du conseil de surveillance de la société de nekk président du mouvement pour la démocratie et la république mbokk yi kon euh, Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci kàddu gi ma Mamadou Diaw ci wàllu machine bi seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.